Oustaz Khadim Mbaye ne ma ah man de bu ma sañoon nga seet si ma ma jaaga ndax ku fonk Alxuraan la ku tedd la ku baax la ma ne ko sama yaay la bi ma demee seetu ko def nan plus deux heures de temps bis boobu laa jàng ci moom lu ma musul xam ci moom lu yéeme mooy cofeelam dëgg dëgg dëgg dëgg cofeel bu mu am ci rasulillah alayhi salaatu wasalaam te man nii maa ko seede te maa teg sama loxo ci alquraanu karim billahi wallahi wa taalaahi mama jaaga bis boobu dee waxtaan ci rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ba rangoo ñam tuuru dal ci dënnam mu ne ma jugal ñëw ma am lu ma la war ñuy dox ci biir kër gi mu dugal ma ci benn néeg bi nga xamee ne amul meuble amul lal amul dara mu ne ma fii laay toog bis bu nekk di def salaatu ala nabi di dund Muhammad rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد دا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ak ay malaaka ñi ngi ànd di junni di julli continuellement sans arrêt ci Seydina Maodo moo tax moo tax te sëlmal ci moom moo li nga wax ni ma voué ko un respect sans précédent ma fonk ko bis boobu nag am lu xew ca néeg ba ba mu waxee loolu ma aalu am lu ma def ma ne ko nag lii man yow sunu borom ñu tënk moo tax bi ñu dawee dem six ans sama ak ju tedd ji waat ñu ne mooy maman de nee na ma léegi léegi man ko warloo koon wax sax ndax lenn ma miirloo lenn ma dofloo lenn ma jaxase maa mun ko dafa jeex takk dafa jeex takk dafa sëy ci bëgg rasulillahi alayhi dinaa ko seede adduna bi yëpp sama xel dafa dal ci moom ci lenn kese kundum kott ndax mën naa waat bàkki lii bu la sauveur mamaa jàgg bëggul woon fonkul woon julliwul woon yaakaarul woon ku dul muhammad rasulillahi alayhi ko borom bi yërëm yal ko teeru yal ko sang-sang yi wan borom këram ak doomam moomi ñoom ñëpp ñu jataay ak rasulillahi alayhi salaatu ak suñuy waajur ak suñuy maam ak suñuy rak yal na yàlla jël jataay bii wusti Muhammad rasul alayhi salaatu wa salaam yërëm humanité bi jéggal humanité bi ci daraje la ilaha illallah sayyidina wa mawlana Muhammad rasulillah alayhi salaatu wa salaam maa ngi